waaw sëñ Touba def na dénkaane yu yéeme bi muy bi muy tàggoo te jamono war na koo indiwaat ngir xam fi ñuy teg sunu tànk bokk na ca waxtaan wa nga xam ne def na ko ak mag ñi boobu mu ngi toll ci fabu wax na leen ni ngóor mag ñëw na fi ngóor mag mooy iblis man la ko daan woowee bi mu ñëwee li mu wax ak man mooy nee na xool na samay doom mënut a yàq ci ñoom dara ndax doom ju ma jur jàngal naa la yar naa la teg naa la ci siraatul mustaqim du ñu réer du ñu réeral ku leen topp dem na ci samay taalibe yu mag mënu caa yàq dara ndax ku ma noppi ci yow iblis laa defal dara hmm. daal ni waaye nag nee na dina saboote sama liggéey saboote bi mooy dina dem ëllëg ku tekkiwul dara mu ne ko demal tuddoo kee séquñu dara daal di wax nii nee na dina fekk bërëb boo xam ni caaxaan képp dañ fay def ñu fay jàng sama xasaayit yu tedd yii nga xam ni dama ko woy ngir jëmee ko ci yanant bi alayhi salaatu wasalaam lépp di jaamu yàlla rik waaye na ngeen ma jàppale ba loolu ëllëg bu ma am bokk na ci dénkaane sëriñ Tuuba sëriñ bi waxoon na ni dénk naa leen ëllëg lii tax a mucc juróom lay doon te tey jamono soxla na ko nee na ngeen noppi wax ju bari amul solo boo fekkee waxoo luy jariñe te léegi senegal li ci toll mooy ku jug di wax wax ji bari na lool nee na ngeen noppi na ngeen jekki jekki mooy ngeen toog seen kër mu ngeen doxiwul farata defe naa tey jii sax corona moom imposé na ñëpp ñu toog ci kër yi na ngeen toog seen kër na ngeen jaamu yàlla ndax moo tax yàlla wàcce leen na ngeen liggéey te lu ngeen am na ngeen ko doyloo sëñ Tuubaa nee na su ma demee nag ba tëdd ci suuf juróom fukki at ñett dina bari lool ñett réer meng téere yi dina bari lool dëgg réer meng téere yi li muy bari bari werante baa ngi ni gàññi kone ne maane ci dëgg su ngeen eggee ci jamono boobu liggéeyukaay yi dina bari lool am am réer meng li liggéeyukaay yeeg usines yi bari bari ngaa yaa ngi jàmbat rek su ngeen eggee ci jamono jooju jigéen ñi dinañ bari lool sëy réer meng saa boo demee tribunal problème mu divorce la kenn sëyatul te yàlla tax mu ni su boobaa ñett dina naqari gis lu jafe lay doon rakk ju gën magam lu jafee gis lay doon doom ju gën baayam lu jafee gis lay doon ren a gën daaw lu jafee gis lay doon daal ni su boobaa waay bu leen jaamu xërëm am ku ni ko duñ la gis mukk di jaamu xërëm mbàkke mu ni ko bul gaawtu de jaamu xërëm mooy ngeen gis nit di ko topp te la yàllay digle du ko def la muy tere du ko bàyyi doonte bokk naag man man sant sax ku ko topp xamal ne yaa ngi jaamu xërëm loolu sëñ Tuubaa dénkoon nanu waxoon na sëriñ Mbàkke so dénk naa leen juróom-ñeent yii ngeen saxoo ko ndax ku mu daje ci moom na ngeen xam ne jaamu yàlla dëgg la ku ci benn manque ci moom nag na ngeen xam ne du jaamu yàlla bu dëgg jaamu yàlla da fay ragal yalla boroomam ragal ku ragal yalla ndax ku ragal yalla ku mata a xel la du du morom ragal ku ragalut yalla ndax ku ragalut yalla seytaane la daw lu bon daw ku bon daw fu bon lu ngeen xamul bu len ko wax lu ngeen mënul bu len ko def lu ngeen momul na ngeen ca man lolou denkane serigne touba khadim rasoul ene denk na len juróom yi ku ko wettalikoo mujj ak jamono di nga mucc dee leen def lu ngeen mën di yenu lu ngeen àttan di dugg ci bunt bu ngeen xam génn kaayam di wakkiirloo yàlla di daw pexem jigéen loolu lañ sëriñ Tuubaa digaloon daal di wax nag ni sama jumaa ji na nekk seen yitte ndax yàllaa ma ko dig te am naa ngeneen ñu ko mën a liggéey waaye yéen laa ko liggéeyloo ngir xam yoolu liggéeyal ma li ci yàllay fay te ma yéene leen bu ci kenn nëbb ndax ku ci nëbb kat di réer àdduna réer àllaaxira ku ci feeñ nag dootoo nëbbu àdduna dootoo nëbbu àllaaxira na nekk seen yitte sama téere yi muy xasaay di mu taalif na ngeen ko topp da koy téye ci laab di ko jàng di ko sellal li wàcc hillaahi ndax samay tànk la te ay tànk ku ci topp te wàccoo ko di nga gis borom te xasaay di ñooy samay tànk topp leen ba fekk ma ëllëg fa may nekk ma ànd ak yéen daal di wax ni sama doom yi na ngeen leen topp ndax sama doom juma doon teg naa ko ci siraatul mustaqim du réer du réeral ko ko topp sama bis bi ma amul lu dul moom muy màggalam gi na ngeen ma ci santale yàlla su ñëwatee ci bernde ganaar ba ci gëléem ndax mooy bis bi may sant yàlla ci nattu yi ma tegoon yooyu yëpp ay dénkaane sëñ Tuuba la mën naa jël presque guddi te du jeex waaye daal ñu jukki ci yooyu ñu bàyyi ko xel muy muy muy sermon bu mujj bi muy xutba bu mujj ku tedd ki euh, mu jóge fii 1927 euh, daal di fekki soppeem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ca wetu sunu borom subhaanahu wa bunt boobu nag euh, bu ñu ko ubbee sëñ bi dafay jóge jàmbaar ji daal di ñëw mooy ndono lu métti lu diis ci jamono bu doy kooku mooy kan mooy sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbacke ibn Khadim Rasoul premier xalif général des Mourides moom la ñuy waxtaanee ci ñaareelu xaaju jotaay bi Abdoulahad ubbil ñu ñu dugg Daaru Xuddoos. kon waxtaan tuuti avant ñuy dem ci pub ah. ñu dem ci pub wala euh, euh, ah mu ubbil ñu laat ubbil ñu. Mm.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 واشكروا الله في أيام معدودات واشكروا الله في أيام معدودات وجهت وجهي ذا قرب من الله بجاي أحمد ذا شوق إلى الله وجهت وجهي ذا خرب من الله بجاي أحمد ذا شوق إلى الله الله أكبر مما كنت أفعله ولست أقصى ولا أرجو سوى الله ذكري وشكري ورضواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله كل لحو جل في سر وفي علن ولست أسأل خير النافع الله رباني النافع الواب أشكره ما دمت حيا بقول الحمد لله الله أكبر من عقلي ومن عملي ومن مقالي فكلي سار لله الله أكبر مما كنت أطلبه ومن أطلب كون العبد لله له الوجود الذي قد زانوا خدم مع البقاء وخير الله لله مختاري كونه فالحكر لله له البرايا له أفعاله ولو مختار في أبد فالأمر لله الكريم الذي أرجو إقاسته وكونه لي مرجو لدى الله فوتي خدا كونه لي سرمدا برد الأمر وفويد بالمختار والله يدي وقلبي لا عبدا لا بردا ذا خدمة لرسول الله بالله أسكى صلاة بتسليم بلا عدد علي بالآل والأصحاب من الله يا رب صل وسلم سرمدا كرما على وسيلتي الحسمى إلى الله يا رب صل بتسليم على وسري من اكتفيت به في طاعة الله أغني محمدا المختار من مدر بالآل وصبي اسم المالك اللاخي محمد الجنة عن للحساب خدا وجنتي في جنان الواسع اللاخي ملكني العام فاخ المنى كرما يا مخنيا كل مضطر إلى الله عليه صل وسلم ولتتم بي قصدي وسخلي ما أرجو من الله